mbokk yi gannaaw bu nu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla noonu yàlla boole jëkkal dellu di ndokkeel jullit yi ci at mu yees mi nga xam ne moom la ñu dugg muy at mu bari ay fàttaliku bala ñu ci agsi sax ñu wuutu mbooloo mépp jaal jullit yépp ak réew mi yépp kilifa gu mag googu nga xam ne moo fi bàyyi ko yàlla na ko yàlla yërëm sëriñ Abdul Aziz Al Amin yàlla na ko yàlla wanale ak mag ña ka ca jiitu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te tegal ko loxo ci njaboot gi noonu rekk la bokk na ci tomb yi fàttalante muy at muy dugg si am at ak at mu tàggoo at mee nga xam ne tàggoo na di suñum at ñun jullit yi te jàpp gi ñu jàpp xew-xew ba ca amoon ba takk ci fi ñuy tàmbalee wàññi ati jullit yi xew xew la boo xam ne doonte nit ñi tàmm nañ ni at sàngam jeex na at sàngam mi ngi dëkkmal xumb xumb ya cay am bu dee ab jullit la nag war naa taxaw seetlu ba ca jëkk mooy kilifa googu ma tudd nekkoon fi daaw bareen ak noonu yàlla xëy-xëy jëfandikoo ci moom coobareem tàgguwut kenn keneen ku muy jëfandikoo ci moom it du tàggu kenn bu ñu seetee at mi nga xam ne moom la ñu génn at mu tiis ci jullit yi la bërki démboo lañ fi doon waxtaane di fàttalante ñi xamoon ñi xamagutoon ñu di leen yëgal suñ mbokk jullit yi sonn lool fi barab coono ba day dogalab suñu borom moo agsi ci seen kaw waaye jaarane ko ci ay loxo loxo yooyee nag yàlla na leen yàlla damm ba dootuñ mën a tàllal xew-xew bu tiis boo xam ne jullit yi dootuñ ko fàtte ci at mi yàlla na fi yem ci loolu nag ñu xam ne saa ba am at jàllee am na ñooñ ni ñu koy fàttalikoo mooy di ca taxawal ay xumbeen di wax ne bis bu dellusi moo neex dañoo juum bis bu dellusi kay neexut dafa metti ndax ku dund bés ba at bis ba dellusi ca déwén sa lim war a jëkk xalaat bu dee ab jullit boo xam ne pas-pasam a ngay dund moo xam ne fukki weer ak yaar manqué na ci dundam te fukki weer ak yaar lu tuuti la boo ko dend rek li fi nit bëgg a dund waaye li teg tele gaaw yàggaay bi ak bariwaay bi mooy kuñ ne woon fukki weer ak yaar yi dañ koy topp ak yar ba bis bi dellu si déwén dana xam ne fukki weer ak yaar lu bari la kon ñu fàttaliku ne fukki weer ak yaar manqué na ci suñuy dund te nit ki lu ab dundam gën a manqué mu gën a jege faatu yàlla ma ko wax ci alxuraan nit ki saa bu juddoo ba ne cëpp tàmbalee noyyi non yim fi tàmb yim fi war a am mi ngi tàmbalee manqué benn par benn ba ba muy mën a toog ba ba muy mën a dox ba ba muy demal boppam ci ay soxlaam ba ba muy jekk-jekk waat toog duutu man dara bis bu set noyyi gim noyyi di fekk ay moroomam moo tax sëñ bu mag bi wax ci téere bu ñuy wax Masaalikul Jinaan ne nit ki na xam ne noo yi muy noy yi bu buñ ko doon jënd du neex a jënd lépp lu amul njëg lu njëg bari bari jafewut a jënd ndax am nañu ko yàlla jox waaye nee na ak non su nit xamoon ni mu toll dana ko neex dana ko jeexal ci lu neex suñu borom subhanahu wa taala waaye nee na noogu dem te yóbbaalewu dara loola moom nit daf da koy topp mu di ko rëcc ba faw yàlla na ci yàlla musal moo tax waykat bi wax ne bis bu nit yendu ba jant bi sox dara mettiwu ko lam ndékkee woon ak lam añe woon ne ko foo ma tegoon ndax rees na bu yàgg lam ciy xalaat mooy fas yéene yëlëb ab lalam jàll ca wàllaa fas yéene nelaw jàpp ne bis bi moom jàmm am na ci déedéet li ci wérte woon mooy bis boobu da koo yóbbu rek ngir mu gën a jege ji bàmmeel kon boog nit dafa war a woog loxoy mbubbam fas yéene balaa dig baa agsi te dig ba ay waxtu la ay bés la waxantumaak ay at kon saa bu am at ñëwee jullit bi na fàttaliku ne këram yi mu dëkke ràpp di kël na kër yooyu kër ga muy nar a sañ ci ëllëg nar naa am gan googu moom day toog di xaar xam ne kenn mënu koo teggi donte nag yàlla na sore moo tax ki am tawfiq dëgg nar a am muur bu ëllëgee mooy koo xam ne day fexe ba jant bu fenk balaa so mu sëf ko ba mu fes dell mu yóbbaale ko ba bu ko seetloo moom ci boppam day xam ne tey jii lim ci def moo gën lam defoon démb fas yéene it bu fekke waatee suba def lu ëpp lim defoon tey fas yéene it at mu ñëw mu xool at mi lim ci jot a def ñaar rek la ko séqaloon yàlla ak moroomi jaamam yi lim ci def digganteem ak yàlla xam na ko yàlla xam ko lu ci du noona bëggut yàlla rek la ko bu ëllëgee mu tuub lu mu séqoon ak mbokki jullitam ak i dëkkandoom ak lu ñu mën a doon mën na koo xam moom itam ni ko ay dëkkandoom di xamee lépp lu ñu sa mën a nettali ca pénc ma mu fexe ba mu jëm kanam lépp loo ca xam ne kenn bëggut ku ko nettali ndax ba mu koy def bëggut ku ko fa fekk mu gaaw teggi tànkam xamut ba xam dana fekke waat at mi bu dee si waatam déet ñun ñi nag ak ñeneen ñëpp yàlla na leen yàlla dimbale ak nun bañ fekkewaat ko ay ati ati at te natt bi ci dal jullit yi ci àdduna bi yépp suñu borom teggil leen ko yàlla na nekk at moo xam ne daal buñ ko dee fàttali ko yit dinañ dund ci at mi di ñëw tawfiq ak saada ju ñu koy fàtteloo donte fàtte ko du yomb mu mel na nag ñun ci réew mi dafa am lu am solo ci jëmmi doomu aadama loo xam ne daf ñoo gàllankoor te mooy li gën a am solo ci nit dañ ca am gàllankoor mooy ak yëg yëg bokk yi kuy soog a judd danañ gis muy jooy ñi nattale rek ba xam daa wéradi ba xam daa mar ba xam daa xiif ba xam fii daa tàng waaye li wér te wóor moom te ñépp mën koo xam mooy soo ko dompee da nga xam ne mi ngi yëg donte mënoo xam ci moom xiif wala mar yëg googu nag nit ñi dañ ko yemale ci seen bopp rek defe nañ ne daal moom su réew mi dalee fu la neex gont fu la neex fanaani xalaatoo ku lay dogale ci yoon wi xalaatoo ku lay wutu sa gannaaw ci sa njaboot yëgatoo lu xew ci àdduna bi da ngay defee ne lépp jàmm te moo ne kenn ku ne si nun li koy dimbale ba muy yëg yëg nag cib jullit bu ñu koy wax mooy pas-pas buy dund pas-pas buy yëg buy yëg lan yàlla sëñ bu mag bi neewoon na ci waxtaan wu gudd fekk dafa am ku ko laaj ne ko àgg ci yàlla laa bëgg nga tegtal ma yoon wa ca jëm mu ne ko yàlla dem ca aajawut war aajawut dox dangay teg sa tànk ci saatal mustaqim rek soo ko wàccut li tax aajawut dox aajawut war mooy ma wax ci alxuraan ne moo bind nit xam démbam xam tayam xam ëllëgam te li muy xalaat sax yàlla xam na ko dal ne wa huwa aqrabu ilayhi min xablil warid dal ne ndax xam ngeen xablul warid lu muy tekki ñu ne ko déedéet mu ne misaal ma mooy yow miy dox di dem ànd yow képp am ku la ne maa la gën a jege sa bopp boo dee bu dee xalaatukaay maa la ko gën a jege bu dee sooy fase loo yéene nit ak loo ko dul yéene maa la gën a jege foofa mën na koo jaaxal mu ne leen li ciy tegtal bu leer mooy yàlla du waxantu yéen ñii ku ci bokkoon ak nit néeg bu ngeen dee doo ko fanaan ba yéen ñaar kenn ku ci nekk su làmp tëkkul sax mën naa dox dem fa mu dencoon ñu ne loolu de ak miin la mu ne waaye bu kenn ki négee ba moroom ji génn mu gas romb bi ba mu xóot mu denc fa lalaat ca romb jaan ka moroom mi mën nañoo ba toog ci te fekk ne ka fa denc ka ku gën a jege ndax moo xam ne denc na fa dara ne leen kon noonu la yàlla demee ak noonu dem ca aajawut war aajawut dox aajawut wat war wal ab yóbbal waaye nañ cay daxe mooy teg sa tànk ci siraatal mustaqim mooy ay digalam ay ndigalam te bàyyi ay tereem su ci nit ki doxee dox ba àgg ba yàgg ba yàgg ba yàgg dana àgg ci lii may def ak yéen ngeen gis ko ci fekk da doon tàngal ataaya mu ne muquraas gii muquraas mooy weñ gi ñuy daan samp di ci wékk satala bi taal ci suufam muquraas weñ la ndox ndox la suukar suukar la warga warga la sawara di sawara nit di nit nee na ki ñu xellil muy naan li muy yëg mooy yàlla ki àgg ci yàlla day yëg ne yàlla yàlla lay yëg moom ci li muy naan donte ñun saf suukar la ñuy yëg wala tàng waaye ki àgg moom li muy yëg mooy yii daje te yàlla bind leen ñoom ñëpp yàlla rek moo leen mën a dajal li yàlla boole rek mooy mën a ànd kon bépp xol boo xam ne ma ngay yëg bépp pas-pas daa war a feeñ ci ay jikko daa war a feeñ ci melokaan balaa jaxasoo di am ba jikko di feeñ bokk yi adduna bi fi fi ay jullit nekk ñépp a sonn amul fenn fu ab jullit amee jàmm ci adduna bi ndax ñun ñu ngi koy yëg réew moom ma tudd daf cee fës rek jamono yii waaye feneen fu dul foofa it saa su nekk ñu gis nit kuy dox ak i tànkam moom képp ant kenn waaye saa bu ñu xamee ne ab jullit la rek fitna nar na koo dikkal te moo ne jullit yi day ñu bari lañ lim bu takku lañ waaye lu tax duñ jóg ci yenn yi bu dee ña nga xam ne seen pas-pas ngay dund na ñoom lay tax duñ jóg mooy dañuy xool ci ki leen di teg nattu bi dimb suñu borom ji ko bind rek ak lim do liñ liñ jàpp ne moom la yàlla dogal ci ñoom faaw ñu daje ñu dajeeg moom te ci waa ji la war a jaaree loolu rekk la waaye li ciy gën a tàngub xool dëgg mooy bokk yi ngóor soosu di son bu mu xonq mi te neen jullit nañ leen rey ci waa ji bu yoroon bu yoroon turu jullit mara dem si kon de woowee nañ ko turu wu nekk waaye gannaaw du jullit lu mu def jullit yi moom baax na gis nañ élément yi ñu fi jàpp gis nañ ay kilifa yoo xam ne nit ñi dañ leen a jox cër waaye bis bu set ñuy fexe lu ñuy fexe ba nit ñi jox di leen joxoñ te xaaju ñoo àgg fakee àgg ki taxaw ne dafay bëgg a julee jullit mu jeex tàkk moo ne am na ñu yor seen bindukaay seen xalima du fendi mukk am ñu yor seen làmmiñ duñu selaw mukk droit de l'homme droit de l'homme droit de l'homme laajoon naa fi karo laaj boo xam ne tontooguñ ko ba léegi xanaa jullit moom dërët l'homme ba amut jenn xàq bokk yi lee waajay def fee ci réew moomee ca penk doon nañ ko def centre Afrique bu yàggul rek ñaari at ci ginnaaw rangale ay jullit di woo par kenn ku ñëwuñu ren daana ci pax mi ana fu droit de l'homme nekk te mu ñu gën a jege fu fu mu ne am na ñoo xam ne xëy nañ xëy génn leen am réew delloo leen seenum réew ndax nee na ñeey lu wér la ci ab dëkk dañu leen di tere ñu nodd fa ñu lànk ana droit de l'homme fu mu nekkoon te moo ne déclaration universelle des droits de l'homme nee na woon doomu aadama fu ko neex mën na fa war na faa mën a dem dëkk fa di fa jaamu lam fa bëgg a jaamu bu dee jullit mu di fa jaamu yàlla waaye nangul nañ ku nekk nag mu def lam bëgg a def ba mu des ab jullit donte yii wuute sax ak jikko yu nit xamoon mën nañoo may nit mu def ko ci réew moom dëkk bay wut sax ministère yoo xam ne dañ cay boolewaale àq ñooña te di ko nëbbu ba kenn defe ne kenn du ko xam mi ngi am waaye jullit yi nag bu at mii dugg see war nañ cay jàngat xam ne li tax ñu jàpp dat bi yonent bi gàddaaye woon sallallahu alayhi wa sallam du neen bi yonent bi laata gàddaay sallallahu alayhi wa sallam jullit yi dajoon nañ coono yu mel ne yi ñu daj ci jamono ji wala ju ko raw yonent bi toog di xaar ndigalu suñu borom subhanahu wa taala xam ne joxoñu suñu borom kenn mënu koo banque te ku ko topp da nga àgg fa nga jëm ba mu amee ndigalul gàddaay bokk yi nañ déglu ba xam jullit yooyee la leen lislaam jaraloon ku pas-pasam di dund na ko ko jaral bokk yi ba yonent bi joxee ndigal ne nañ dem ku mën a dem na dem fàttali nañ ko ba tàyyi am na ñoo xam ne ca la seen kër tase tàggale nañ seen soxna ak seen doom ñu ñàkk soxna ñàkk seen doom am na ñoo xam ne commerce bu mag la ñu yoroon ñu ne leen du ngeen dem ndax commerce am na fu muy àgg mënu moomatoo ko nit ñi jënd ñoo ko moom kooku na leen su fekkee commerce bi moo may tay dem jël leen bitig bi sama dem ñu ne ko demal mu dem jaral na ko am na ñoo xam ne jàpp nañ leen atum lëm ndax ba ñu waree gàddaay ba ñu ba dëkk ba yëg ko dañ leen tëj kaso boo xam ne defuñu dara bu fekkee am nañ li ñu def daal mooy ay jullit lañ ñu bëgg a ànd ak yonent bi gàddaay sallallahu alayhi wa sallam am ñoo xam ne noon yi ñoo dem Madina fekk leen fa am na ci kuñ nax ne ko sa yaay nee na soo ñëwut ñibbisi lu boppam ba teeñ teeñ duutu ko létt duutu ko peñe lu naaj wi tàng tàng duut teg ci duut toog ci ker lum xiif xiif duutu lekk lum mar mar dootul naan ba mu ko waxee Seydina Omar mu ne ko moo xam li wér te wër mooy su ko teeñ yi bëgg a yenu yóbbu ko moom dana defar boppam boobee bu ko naaj yi bu ko naaj yi de bëgg a rey itam ndax tàng faw mu wuti kar gum toog su ko xiif dee bëgg rey su amee lum lekk dana ko lekk su ko mar di bëgg rey su amee lum naan dana ko naan lànkal waaye nag nit ki lii moo ko moom lii ay bokkam moom ko kookee ñuy wax ba Abu Jahlin ñëwee ànd ak ña muy àndal maab koo maaba maab ba mu nangoo ànd ak moom bañ demee ba ca yoon wa daf ko ne teeñoo wàccee weccee gëléem ndax daa mel ne sa gannaaw sa gannaawu gëléem moo dàq sama gos waaja ne ko ay ca ci xolub jullitam li nga yéene sa bopp nga yéene sa sa morom ba mu wàccee ñu tagar béjoo ko daal di koy yeew diiri ko ba makka ñu ne waa makka gis ngeen ñoom de nii la ñuy def gaay te araam waaye li ci li ci gën a yéeme ci pas-pas bi dund moo yonent bi toog na ba ba yàgg gisu ko mu ne ana ku mu ko jëlale waay ñaar lañ kañ fa téewoon ak kii ñu yóbbu ay gaay na man ñépp jógu na ku ne na man te bokk yi jëli kuñ téye ci jamono yooyu ca Makka lu ne mën na caa xew waaye jaral na leen ko nag ñu dem defi opération jël leen indi leen opération mooy dugg ci dëkk bi raam ba àgg fañ nekk ubbi bunt yi tungum kii leen boot leen ànd ak ñoom daw dikk am ci jigéen joo xam ne moom borom këram daa bàyyi demoon bàyyi ko fa nu mu def xëy xëy dugg àll bi ne moom fekk yeneen wala mu dee ci àll bi ay ndox ment lekk ko yàlla yàlla yabal benn waaye bu doon ndox ba yem ci moom mënoon na koo si mënoon na ko def lu nekk foo jëm mu ne Madina Yasrib muy ànd ak moom ba ne ko dëkk bii ci la sa borom kër nekk wàññi ko bokk yi gàddaay googu ak la ca aju lépp lu gudd la la ca aju ci ay tatxiya tatxiya mooy ñàkk loo xam ne ñàkk loo xam ne loo soxla la te sonn nga ba nga koy laata am amoon na joxe sa bakkan ngir yonent bi daa bëgg gis diw ma nekk makka mu ne naa dem bu ñu ko fa reyee baax na loolu mooy gàddaay gi kon jullit yi saa bu gàddaay dikkee atum gàddaay gi at miñ jàpp bis biñ jàppoon atum gàddaay gi ci weeru tam xarit la jullit yi war nañoo xippiwaat muñ te xam ne lu mu yàgg-yàgg ndam li ci seen kaw lay ci seen biir lay feete si loolu àdduna bépp xam nañu ko kon boog gannaaw àgguguñ ci ñu dañu soxla ñuy wuy ji te xamuñ dana des tamit gën a ak guñ foofa nañ jël li yonent bi wax ne gànnaay la ci ab jullit muy ñaan na ñépp ñaan at mii ñuy dugg nekk at mu jullit yi fàtteele leen daloon ci ay tiis doon at moo xam ne ci la jullit yi amee ndaw ndam ci kaw noonu lislaam yépp ak fu mu mën a nekk ci adduna bi te toroxal ba faw sëngéem loo ba faw noonu yàlla yi di yooni noonu jullit yi ak noonu lislaam yi te defal ñu ci at mi mu doon at mu ñuy yëge lii metti jullit yi doon nañ ko fi fàttalante loo wax ñu ne yëguma ko yëguma ko yëguma ko daa fekk lam jàpp ne moom moo ko moom rek la denc ba mu ñoŋ amul soxla ca la ca des te moo ne fitna nee nañ bu mu la sori mukk ba nga ne bokkuma ci waaye den deel ñaan yàlla mucc ca weer wu bari nga leen lëg na foofu laay jeexale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na weer wi gën ku ca woor bu ramadan jàllee weeru tam xarit la weer wu yàgga yàlla yàgga walloo ay gaayam itam lañ te dañ ko doon ñaan rek yàlla noonu yàlla bari dimbali te ñu fekke ko ay at gannaaw bu ñu ko santee ci lim ñu may ñu toog fi bareen yàlla nañu yàlla may ñu toog fi ba déwén ñi nga xam ne jiitu nañu it ci at mi ci waa réew mi waa Afrique ak fu ab jullit mën a nekk yàlla na ko yàlla yërëm feneen fu waay faatoo nag te fekk ba muy jóg di dem fexeel jullit yee ko taxoon a jóg yàlla na ko yàlla soreel yërmandeem su fekkee ku faatu la su fekkee ku dund la it bu melee ne waaj a nekk fële ci mayen maar it bala moo faatu yàlla na ko yàlla teg fitna joo xam ne dana xam ne lor gi mu doon lool jullit yee ko ko teg kooka ak ku ànd ak moom ca loola wala nga noppi ca te mënoon caa wax yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin